auzu billahi min asheytaan irrajimi bismillahi arrahmani irrahim astaxfirullah alazim wa atub ilayhi min zawahir wa min xuyub mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen ñi nga xamante ni bii yéenay topp suñu seen bi Diwane TV di leen jégglu ci tardement yi nga xam ni xawoon naa am jamono ji di leen ñaanal jàmm ji sax dàkk barkab alquranu karim di leen baalu xaq te di leen baal xaq di ñaan sunu borom weer wi ñu dëg man muy zahru ramadan sunu borom dëgëral ñu ci te defal ñu ci dugg ci jàmm génn ci jàmm ak salaam te lépp luñ ci jàmm sunu borom nungul nu ko yal na ci sunu borom sukkandiku doxee fi jéggal ñu sunuy bàkkaar adduna ak àllaaxira defal ñu texe gu sax dàkk adduna ak àllaaxira jàppandalal ñuy xewal jafe-jafe yi nga xam ne moo lëmbi àdduna suñu borom teg ko ci barke weeru koor wi ñu dëgmal dàqal ci jullit ñi mboolem njàqara yépp ci barkeb alxuraanu karim te dolli ci dëgëral lislaam dëgëral jullit ñi ci barkeb alxuraanu karim te dolli leen a boole di wax ni ngeen wéy di abonné tey partage vidéo yi te di ko zem comme ni ko Sëriñ Baara Caam waxe ñaanal ñépp jàmm barkeb alxuraanu karim di nuy bu baax a baax sëriñ Moustapha Sarr sëriñu daara ñu ngi koy siyaara bu baax di ko ñaanal jàmm te ñaan suñu borom teg loxo bu baax ci daara ji barkeb Seydina Mohamed barkeb alquran naka noonu la li nuyoo bu baax sëriñ Ablaye ñaan moom itam di sëriñu daara ñaanal ko fanu gudd lool wu ànd ak wér mucc ak muccule barkeb alquranu karim defal leen xewali baawaan saawaan naka noonu la ñuy nuyoo bu baax Serigne Omar Diop doon koo xam ni yàgg topp liggéey bi ba yàlla dogal na ne tey ji lañu woo dénk ñu boppam ci dénk nu yéeme di wax Serigne Omar ne ko kontaan nañ ci lool ñoo ngi lay ñaanal ci barkeb alxuraan suñu borom guddal sa fan te wéral sa cër te dëgëral la barkeb seexul xadim naka noonu la siyaree siyaaree baax Serigne Murid Ba ñaanal ko tawféex ju sëriñ saalihu mbàkke barkeb alxuraan ñaan saa borom dolli ko dëgëral defal ko tawfeex ci daara ji gërëm bu baax sëriñ asan far saatol ak mbokk yi ñuy déglu yépp ñi nga xamante ne bi ñu ñuy safoo fu nekk rek di leen ñaanal jàmm di nuy baax sëriñ saalif saane mbokk yi waxoon na leen jamono groupe boo xamante ni bii dañ koy amal muy groupe boo xamante ni jëm ci wàllum boole ñu gën a xamante waaye di fa jàngalale lasraar ci yi nga xamante ni bii doomu aadama da koy yittewoo ci dundam waaye def ko tam ngir tam nit ki nga xamante ni bii bëgg naa sell diggam ak boromam bu tàbbee des na ko jox dog woo xam ni mu di ko sikkar dana ko dolli ak leer ci jëmmam laabal xolam ba lépp yàq-yàq yu jamono la suñu borom mën ko cee muccal ndax jamono ko tool na foo xam ne bii mucc jafe na lool daara ji nag taxawal nañ ko ci njiital sëriñ Xasan Fall képp koo xam ne bëgg ngaa bokk ci groupe boobu rek mën ngaa jokkoo ci numéro bii may wax muy 78 268 94 06 78 deux cent soixante huit quatre vingt quatorze zéro six numéro boobu boo si jaaree di jot jëwrin ji mu wax la sarte daara ji incha allahu rabbi boo ci d'accord ñu dugal la groupe bi ubbi nañ ko ba commencé na liggéey bi tey mbokk mi ñu indil la loo xamante ni bii yow mi nga xam ne da am jafe-jafe nit ñu sopp la maanaam da nga gis ni ñoo xam ne dinañ am wërsëg lool waaye nit ñi du leen jublu amuk ubbi ko waaye nit ñi du leen jublu nga xam ni rawat na li jëm ci wàllum soxna yi nga xam duñ la jublu benn côté nga xam pour nga am soxna sax daf lay jafe tey ñu indi leen bayra boo xamante ne bii day jox tur wi ñuy wax suqabidu ñu xam suqabidu te di ma dégg xam na ni ni muy ubbee wërsëg yéeme na waaye ni muy joxee nit ki bayre doy na war mu ànd ak nag xadd saqafaha xubban ba ja suratul yusuf suratul yusuf moom ku ko dégg war ngaa xam ni wàllum bayre rek moom moo ci toog incha allah mu ànd ak tur woo xam ne indi wërsëg kon mu mel ne bayre bi daa boole ñaar muy wërsëg ba jiitu ak bayre ngir nit ñi bëgg la rawat na li jëm ci wàllum soxna yi bayre bi nag mbokk yi comme ni ngeen ko gisee waaye yéen ñi nga xamante ni bii yéen a soxlawoo li jëm ci seenu mbir yaram rawatina jaaro bii nga xamante ni bii jaaro wërsëg la wax dëgg moom lamu saf ko ko macca ko mën a xam ndax liggéeyal nañ ko ay nit wax dëgg woo nan nu yàlla rek a mat seede sant ñi ci bu baax a baax a baax ci yéeme gu jaara bi yéeme waaye ndomba reesal gettam ku ko bëgg ak ndomba gi nga xam ni loo def kenn du ko tudd waaye cangaay yi ak lii bi ji mbooloo façon bu nekk tam denc nañ ko ci am na ci cangaay boo xam ni baax na ci commerçant boobu bu su ko liggéeyee jox la ko nga di ko laal ci kàttanu suñu borom loo néew néew doole lu place ba giim giim kawre nga jëm am na ci boo xam ne nag day laaj nit ki génn sarax am xar bu fekkante nit ki mën na ko bu dee koo xam daa bëgg àdduna bépp dégg ko incha allahu rabbi da nga yëkkati ko lool ci kàttanu suñu borom. da nga siiw lool danga nga am daraja lool ci kàttanug suñu borom waaye yow mi nga xam yow sa soxna dem nga bëgg mu dellu si ba tey ki nga xamante ni dafa bëgg a nooblu te jëmi suñu borom rekk nag tax waaye yow mi nga xamante ni bii tam da ngaa bëgg a say waajur waaye mi nga xam ne bii da ngay lijjanti lu mel ni kayit mu dëgër incha allahu rabbi bu nu jokkoo ci kàttanu suñu borom de suñu kawee sa njortu mbokk mi comme ni leen ko waxee. lépp loo xam ne bëgg na ko tam doon loo xam ne suñu borom gërëm na ko mu jëm ci ubbikaay ak kaaraange ak xeetu mën a doon rek na jox ko ak nun ndax buñ ko bëggee lim vidéo bi dina gudd lool waaye yow mbokk may déglu li leen indil muy yaa suqabidu xadd saqafaha xubban comme ni nga ko gisee li ci kaw nag bokkul loolu mooy njariñ li loolu li ma ci leeral mooy faida bayre bu yéeme moom laa ci def waaye mbind mi ci suuf na ngay bind muy yaa suqa biddu xadd saqa faxaa xubban ñaata nga koy bind 1114 fois nga koy bind 1114 fois junni ak téeméer ak fukk ak ñeent moom koy bind mbokk mi boo paree da ngay wut karawuk tubaab karawuk tubaab moom nga koy booleel nga sangoo ko juróom-ñaari fan wallahi bu la neexee moromb ko waaye bu dee bayat rek nga bëgg ak ubbiku nanga jëfandikoo lii chaîne bi nag la leen waxoon jomb nañ fee dugalati fi mu toll jomb nañoo dugal loo xam ne bii naka su noonu la wala moo demee neen la la lañ ci wax nekkul waaye nag ànd ak loolu lépp ñu xam ne seen borom a man mooy nungu ndax secret lu mu am am doole rek suñu borom ci dugal loxoom yal na leen ko nungul nag ci barkeb alxuraanul karim dafa leen ci la kay seen jortu

yal na leen yàlla defal jàmm te defal ñu ko wasalaamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu